waa toogal kan moo ci xam tey ndaanaan bi ma invité Sister Z. waaw est-ce que tamit du Baba Diallo borom tey ba tey mën naa nekk Diop. mais sama gars yi man de Wally laa ko foog. vraiment ni pire boobu. ba tey ndogu riis na riis boo xamante ni mën naa nekk sax Wally Seck Sister Eva. xam nga nag gis na lu riis lañ xam ne kooku nag moom mooy Amathou Prési ah kooku moom mooy Chéri Khadija bàyyi du bële naa xam ngeen ne moom la ñuy invité tey jii la ameti ba tey ba tey plateau bi méngoo naag plateau ameti waaye ba tey surprise laa xam du ma leen da ngeen di jékki-jékki gis ko mu ñëw kon nag damay woo sama ki nga xamante ni mooy sama invité mu ñëw rejoindre fi nga xamante ni mooy ci seen ëttukaay la ko ndax tey moom Diop macha allah plateau bi tey riis na. ah man de dama ko rek suur te li mu nekk nii damaa xiif fajar laa ngi lekk ba léegi. waaye bi ma tiimee yëf yi rek daanaka acca mu ngi noonu kon nag dañuy woo suñu invité mu ñëw si suñu fii ñu daal jàkkaarloo fa waxtaan ak ma leen ko waxee woon sànq ba léegi nag suñu invité nag tey gis ngeen ko nii muy Kéba Seck di faramareen bu mag bi tabaarkalla di ndaraan boo xamante ni kenn dootu ko laajte ci Sénégal te moom la ñu invité tey mu dalal ñu ci spécial ndogu gis ngeen tey plateau bi ni mu riisee te Kéba balaa ñoo sori xam naa ne tey yëfi seeteen nga fi def mais dañ lay bàyyi nga nuyoo askan bi nga xamante ni ñu lay seetaan ci El Vision Médias. <laughs> asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp di ci El Vision Médias. Mhm. waaw ah oui Vision Média donc di di di di wax ne di leen wax asalaamaaleykum. Uh-huh. di baal ñëpp ak di ñaan ñu baal ñu ak. Uh-huh. di leen di leen fooy mën a nekk à travers El Vision Média. di nuyu équipe bi nga xam. Uh-huh. di nuyu bëggoon ak yaay. <laughs> nee na tur bu rafet la. aja ba tey Kéba euh, ci loolu la ñuy ubbee sax ñu euh, ak artistes yi bu jotee ñëpp ak seen i jàggi mhm. di xaar koor bi jeex donc bu ngeen tolloo ci moment bi naka ngeen koy dundee ni ñu koy dundee mooy comme comme ni ko ñëpp dundee parce que weeru koor weeru koor la. du weeru koor artiste war a kër tout musulman la. donc moom ñun ñëpp yi def ñu def rek.

waaw li ngay def El Vision. waaw macha allah comme ni ma la ko waxee euh, ba. Ah. waaw ci bu muy moom euh, dafa am koo xam ne dama ko bëgg a eggal yow. dafa ngaa eh, yàgg eh, man foo jëm. Ah, fu ñu war a jëm. Euh, dama gis ñu naan Kéba Kéba Kéba. ah bon waaw Kéba ku yow maanaam ñëpp koo xam Kéba foo waaye bi nga def Kéba Kéba. Mhm. Euh, te maanaam tey Kéba mën na la romb te yow boo xam ne maanaam fi mu ne Kéba maanaam surtout dafa egg foo xam ne maanaam loolu bëgg naa xam lan moo ko ah loolu nag foofu la war xanaa xanaa borom wax dëgg yàlla mais moom laa ne lii moo ko mu fi jéemee créé leen sax tax mu loolu mbiru borom bi la. comme maanaam moo ko waral parce que bu ne nga ñëw def benn single dafa war a bokk benn clip keebaa keebaa bi alhamdulilah macha allah yàlla sax am ñoo xam ne dañ dajeeg yow xam sax nañoo war ne yàqamtee gis loolu man au capable du moom bu borom moo def nii mu ngi nii lépp lu mu pour pour mu ngi bees ah dafa mu ñëw. waaw waaw man tamit sama question. ay kon nii la ne. moom kay xaaral loo may may est ce que si yàlla jàkkaarloo la tey. waaw man Kéba dama ko doon teg Pentola. parce que man ah. dama def ay soirée yu bëri bëri bëri mais am na semaine yoo xamante ne dafa daan ànd ak sama gars yi. Mm-hmm. mais dañuy dem ñu ne ñu noo ko ba Kéba nekk. bëggoon naa xam bu ko waaj. da ngeen fa j'ai pas compris. dañ tëggee ñun dañ doon dañu doon fekk foofu. waaw samay copains. waaw mais ñu demoon benn instant bu fa demee. dañu naan kee balaa tëggu tukki léegi. ah d'accord. waaw loolu kay loolu kay waaw mais loolu sa loolu fay am loolu lu may sawar lu may sawar tontu la. parce que Pentola macha allah donc dem naa bañ may dama fekk naa fa ay orchestre yu bëri yu fa jaar

loolu tax ko parce que jiw dama ne orchestre moom fa yóbboo. ah du ma pousse. xool fenn orchestre nangu orchestre. lii rek la def. Hmm. te ba léegi dégg naa la na ñoo xam ne ñuy dem pentala les vendredi wala dimanche. parce que hmm. hmm. ñu war a doon ñu ne nag daal mais léegi ñu may borom kay. bu leer na. ok tonton Keba. ah chérie tu dis quoi. ok moom euh. euh, gis ne Keba Seck dafa am relation ak animatrice yi ak animateurs yi ku ci mel ne Dogo mhm. nga expliquer ma euh, relation nga am ak ñoom ba tax say soirée di woy ba ne Mbaye Dogo mhm. yaakaar naa fental nga ko benn woy ak bii plus mhm. nga expliquer ma Padros. waaw mooy

donc et puis mu nekk suma kooku suma jàmbaar nekkati. dama dama maamam laa sax laa wax. ci mbokk yi. donc mu jege ma aussi ñu bari xam ko nag gannaaw yàlla à ci keebaay bi moom waa tàkk yokk na ko même bu doon en ci noonu la lay après comme ça ndekete maamam c'est normal da koy gën a ma jàppoon. xam nga dama maam la dafa gën a jàppal. mbokk la dafa neex. Aliou Mandione daanaka maa koy ci Pikine. voilà jërëjëf la ko. ba tey comme ni ñu leen ko waxee sàmm leen yéen a ngi gis jàkkaarloo. dégg naa la man déglu ma sëñ bi dégg na. ki lay mujjee waay maa gën a tuut ci ni la waay xam naa li ma leer te wóor li ma wóor te wóor yaay jàlle jaami yow lan doon seet yow la yow yaay muhammadu rasulillah duma ki lay njëkk duma ki lay mujjee maa gën a tuut ci ni la waay xam naa li ma leer te wóor li ma wóor te wóor. acca ba tey gars yi comme ni ñu leen ko comme ni ngeen ko gisee nii rek euh, def nañu ndogu ba pare ci seen émission kaa ñu ndogu tey nag ñu jàkkaarloo ak Keba Seck gis ngeen tey tabaarkàlla. Euh, euh, Euh, taabal ji ni mu gisee tey macha allah lépp rek ñu ànd ci ak waa El Vision comme ni ngeen ko xamee ba tey Kéba la bu ñu ndogoo ba pare def julli def euh, li ñu war a def yëpp dañuy eggali émission bi ba tey ndax ñu ngi tolloon ci sama question bi ma la doon laaj ndax euh, dégg nañu Kéba comme ni ko Sister Zé laajee sànq. Kéba ñu gis mu jox ñu benn single single bi neex lool. Sénégalais di ko consommé ñuy xaar album di xaar album di xaar album ba tuuti jox yàlla tey gisaguñu Kéba jox ñu album. mais Kéba loolu lu tax. waaw xam nga euh, yàqamti jël ko te affaire bi du comme nu gars yi waxee du rawante. Mm-hmm. nekk nekk ñu ci course. Mm-hmm. donc je dañuy sama temps. Mm-hmm. comme dañuy indi single yàlla teg ci loxo macha allah ñëpp ñëw yi ñëpp dëggoo ko. dañu bëgg suñu ñëwaat maanaam ñu gën a prouvé. dañu leen loo xam ne dañuy gën a góob. loolu pour nga am ko boo yàqamtee da ko am. donc je

je préfère ñu may ma tuuti rek ma ko à travers El Vision ñu bañ a yàqal parce ma leen loolu donc su ma soñoon génn yeneen ak yeneen yeneen et que dañu nañ leen allah euh, am yaay xaar <laughs> waaw man foofu la dul ak yow mooy euh, Tonton Keba mi Tonton Keba mos na am soxla loolu mos na am soxla ndax mos na am jamono la amoon naa soxla te dama Não. Não. Em relação aos barcos, basta. Masha Allah. Mais beaucoup de amato sotna. Amato kuma may labat. Mais yaay pay Ah, pour takkat kenen. May labat. Mais leg ana ngay labat legi. Ah. Leg leg ala ñu bëgg ay so ya. Wér ngeen bëgg tam. Non mo wara defal ko bi sa. Wa dama fi gis na ay ay ay

mais bi nga xamante ne moom instant boobu yoon teg na ko loxo yow ci nga ci nga nekkoon génn di woy ma dégg ñu ne Papa Thione moom moo ne la instant bi Kéba war nga mën a génn. c'était bien avant c'était bien avant. Mhm. Euh, bien avant ça donc. Euh, mhm. li mu bëree bakkan la. Mhm. daf koy bagaas. bëri Ousmane. daf koy bagaas sama tur bi ci laa bëri. ok ah ku ne leen mu rëbbi. doon na la ci bagaas bi baax.

mëneena doo moo fi nekk xale yi mënaguñ tënk musique fi ne yaa leen di gis hmm? ñuy def seen loo xam ne ñu àgg foo xam ne benn nekk xaali ngi man man ci mu fii la ci kaw la yi ñu ngi ci ñu ñu nekk yaa ngi si chemin dañ ñaan yàlla bon relève bu mu nekk relève bu extraordinaire effectivement ñu ngi ci yoon mais xam nga façon bi ñu sax bokkul façon way ñu sax bokkul donc mën a bu gën a ma baal ci loolu. waaw loolu moom dëgg <laughs> ba tey comme ngeen ko wax rek yéen a ci seen émission euh, euh, nu mu tuddati euh, Kañu gis ngeen ko tey plateau bi dafa dafa xaati parce que dañoo am artiste boo xamante ni xam nga voilà quoi dañuy dañuy déliré wu wax def ko comme ko sentiré assisté. alhamdulilah. non dañuy não DG mu yokkaat não ji mi. wala benn não koy yokk dañ não toog kii la rek. não nañ ko não rek ba beneen yoon ndax não bii ñu joxoon ci waxtu. mais xaaral si ngeen may ci mën dara mu leen ci mën dara de. non non não xaaral bu ñëw não fi mu toll não não mu ne nii não maa gaañagum. não ñëwoon. Zé di não c'est bu ñu ko jeexalee noonu. dèjà ndaw bu xam nga fi la moom question yi ñu posé. wallaay dëgg la fi mu ne waaw dëgg la non non bu ko bu ko bu ko nangu lool. non non non benn may dama fi nekk. ma ma ma yoo xam ne Euh, damay gis sànq si si si si si si bi nga jóg dem def li nga xam ne muy nekk jaamu yàlla borom. Mm. Euh, nga ne avant ngay euh, lekk dangay jàkkaarloo yàlla suñu borom. Mm. bëgg naa nga nga nga dugal man dëgg la mag nga war war a def am na ñoo xam ne tey ñoo ngi fi nekk ay mag. Mm. ñoom pour ñoom bi yëpp pukkire la. Euh, dañuy fàtte sax li nga xam ne moo nekk yàlla yàlla. wooyee ak sañse ak sañse rek lañ def ak li jëm si xaalis. Mhm. sàmmay mbayaan woyaan. ñu fee ñu fee. Mhm. dëgg toll noonu. Mhm. Euh, damaa bëggoon rek nga nga xam ne ñoom ñoo lay seetaan. Euh, nga daal di dugg man ci sama question boobu. lancer leen benn message quoi. Uh-huh. waaw xam nga côté bi ñu nekk li ci liggéey dafa xaw a dafa xaw a sensible. n'a rien à voir parce que ak ak maanaam boo ko ji.

xëy na dañoo am taal non parce que loo loo taal taal taal taal. yàlla mi leen di yàlla mi leen di yàlla mi leen di morom bi la commune taal. jaay taal jaay taal. dama gis muy def jaay taal bi maanaam comme nit booy di def rek dem seen ma ci tuñ xam nga sañ see affaire yooyu noonu. attends damay attends parce que bu fekkee doomu faama bu fekkee doomu faama ji la. waaw moom day bàcc ci bu fekkee doomu faama la. waaw. ñu koy wax booy waay. waaw loolu day bàcc tuñ. gis naa ma jaay bi ma. ma jaay waaw gis naa ñu ma jaay ko comme comme la ma comme dafa am lu jigéen bu ma ci woo. <laughs> Oh, c'est pas vrai <laughs> wala boog tig la quoi. mais man da digal ma ci bëccëg. xam naa ne dana am. mu ne daal boo ko ci loo boobu quoi. <laughs> ah li ma la ko déggee nga xam ne nga génne sa bopp ci loo boobu. xëy na sax maa ngi parce que ku si nekk nag la nga xool ci léegi sax mën nga ko gis. Mm-hmm. parce que léegi léegi naa nga ma pourtant moom tamit day jaay taal. man mm-hmm. taal. Mm-hmm. Hmm? man de maa ngi ñu la mel. loolu moom dama ji ànd ak moom quoi. Eh, loolu sax moom mii sax. Eh. d'accord d'accord waaw ba tey man daal je suis comme ça. Mm. léegi ma gis nii noonu la mel. Ah, mais nag Diome euh, bala ngaa ñëw parce que dégg naa ko léegi mu tudd ay doomam ku mel ni ñoom. may yaay non xaaral xaaral non docteur non docteur xaaral. waaw non xaaral Diome sif rek. boo paree ngay. waaw dafa lay jóg waaw man li may laaj rek mooy que Fentola fekk naa la fa. Mm-hmm. Euh, dem naa Sorano aussi fekk na fa mais ba tey. li ma gën a jaaxal mooy artiste yu ndaw ndawaan yi sax ñoom. boo ndaw ndawaan yi sax. ñoom am nañu fit dem jëli kanam. moom da lay xaar. kuñ jël ah, wala da ngay jàngawul wala da nga jàpp ne daal man sekk mii. Ah. man ngay ne nii. waaw man a conflit. Ah. man ma gis ne amoo parce que xam naa mun nga wax. waaw waaw xam nga man lu may ragal. ah waaw loolu ma jàpp moo tax ma lay. daa fekk sama doom yi kas ko ba teg du jot yomb. man sama xalaat bu gàtt. Hmm. génn benn single rek bien vrai que mën naa ci dem parce que yàlla te ma ci loxoom single. dooguma la de dooguma la de. man fu ma dëkk rek ñii ma bàyyi ma bàyyi ma fenn. ñu ngi fa am ci ay fans waaw mais xam nga fi nga dëkk ñooñu. waaw xam ba bañ fee fans mm-hmm. Mm-hmm. ci d'accord loolu am naa ci ampagaay presque dans tous les secteurs. Mm-hmm. du boo wootee rek ñun ñooñu baax ñëw ah. ci sama xalaat bu gàtt. génn benn single dem grand théâtre moom gisuma loolu. bien vrai que yàlla may la moo fa demee. parce am naa chance yàlla bala may nit ñi. ñëpp na ko waxoon kon mun naa rek mm-hmm. mais je génn ma mm-hmm. doog a def gratter parce que boo demee bu fekkee single single lañ xam soo génnee ak boobu bàyyi la ñu consomme ko mm-hmm. boo di nga am loolu présenté mais soo demee noonu ba benn mos la nga xam moom single bi à part yi base comme ça genre bi ma loolu claquette kenn moom ko ñu ngi fi dañ ko taw mu diggi toog du bouger mais man man man fi man man eh, man comprendre man de man moom convaincre wu mënu ma comprendre non déglu ma rek parce que ay benn single ak yooyu yow man damay dem damay dem damay dem damay dem soirée single boobu na ngeen di coow fii dama koy dégg morceau yu ko gën a neex téeméer bi ñëw loolu man waxuma ko pour dara waaw mais génnagul waaw mais dafa génnagul ah dafa génnagul te boo laaj laaj laaj boo bëggee waxaat ma ñëw xëy na peut-être di nga di nga gën a comprendre moment bi nga xam ne dem nga grand théâtre comme ñu da ngay ñëw soir xam nga ñu ñëw soir taxul may wax. Mm-hmm. ñooñu dañ xam morceau yi. Mm-hmm. bien vrai que génn ko mm-hmm. mais ñi xam ne dañ toog seen kër. wala bokk nekkuñu fi tombeeg ñu dégg la grand théâtre buñ ñëwee dañu war a def dañ war a am lu leer non loolu war a tegal parce que ñun fréquenté wuñu boîte bi. kon su ma la déggee album ngay xaar pour mais jënd bu yàgg. ma léegi yàgg. nga ñëwal ma ci sa yaay parce que Kéba ku ko gis euh, ah. ay soirée et tout ça. Euh, ah, day koy yaayam boo sa yaay bi rek euh, sa sa bi hmm? ki nga xamante ne moom mooy nday nday càm Babel bi di kuy reer reer bi nga xamante ne hmm. la làkk mu bëgg nga waaw su ma jumul avant day tabax nee na sama yaay. sa yaay waaw. waaw xam nga sama yaay tey jii ma nga ci kaw dëgg tey donc ñu ñaanal moom ku mu fa fekk koo fekk. yàlla xale Aziz Ndiop. ak Juma Ndiaye Moussa Sané Aladji Wali et cetera. ak tay bi Zane Paris Diop et cetera ak képp koo xam ne rek.

donc des fois damay nekk sur scène euh, di ay yoon yoon ma toog nag tag maanaam sur scène di way sama xel ne yar ci suma ci bi euh, nga xam ne maanaam dal la ma wax ma caat ñëpp a ngi bul way sama ma rek laay xool leer ma def léegi ba yàlla dëdd na lu yàgg ma doog way léegi nii nag parce que man j'écris man bindu ko mu pet amul gerte li ngay way may way yëpp amul mu bindu ko. sama bopp rek lay xalaat di way. man damay damay xalaat di dem. donc mu nekk loo xam ne eh, donc sama xel ciy dem à chaque fois ah yaa ngi xam fort. am naa ci ñu bari ñoo xam ne tamit comme digg yàlla bien vrai que comme euh, nu mu tudd sax. John John bi ñu doon wax nii ne. Euh, ci loolu na ñu xamee. Mm-hmm. ci surtout morceau yaay bi. Mm-hmm. bien avancé nga. Mm-hmm. donc ci morceau yaay bi lañ ñu bare bare bare ñoo xam ne day ñëw tag même ci morceau bi ñu xam sax koo am ñu bari ñoo ne dañuy taxaw jooy a dee bu ñu leen ba ñu xam ba xam parce que bu ñu xam sax ba ñu jooy. ñu ko fekkee quoi. après danañ laaj bu ñu paree bu ñu noppee ñu laaj ko noo wéy. am naa ci am bagay yoo xam ne sama relation yi ñoom ñoo la ne ñu fexe ba liggéeyal sama numéro pour xam parce que loolu dafa leen marqué parce que dafa leen dal dal boo xam ne da ngay dafa xam dafa xaw dafa xaw kii maa parce que yaay moom mel noonu quoi yaay def foofu hmm? côté Ndeye Thiam moom man xam naa ne ñàkk naa pour beaucoup de raisons parce que kooku daawul yëngal daawul faral agressé nañ ko ba tey ci lan baal si moo xam àll moo xam retour dañuy dem ba ci diggu soirée sax fekk na nga moom dóobu ñu fenn ñu ne ko agressé woon mu ñëw ay blessure la noonu la ñëwee moom nekkal yaayam ngay kaf sax di ka di ko kafate balaa moom la loolu dafa garaaw donc boo fàtte jamais d'abord bi mhm. bu ñëpp mel ni moom moom ah Il non non gënal ci parce que ba tey da ngaa nekkoon ci bu xaw a triste moo tax ñëpp. concentré di la. non walaay dëgg la parce que man su ma xamante Mbaye Babel c'est grâce à moom parce que tamit lan la ak Padros ñoom ñoo xam ma xam ma tax ma xam Mbaye Thiam Babel. parce que Mbaye Thiam mm. la

fekkaama boobu ñu ngi sol ñu ngi fi mu tëdd feebar. ñu ngi woo ku ne. ku nekk message bi dem histoire lay la ñu ngi woo ku ne la leen demee. émission mhm. bi bi juste bi def dafa gën a loo xam ne jarul wax baaxul. naa ko bàyyi yeggalee. mais xam naa ne daal après jeexal ci suba si la def naa ci ci ci ci ci la gaañ. donc mu nekk affaire boobu nag moom fàtte daa ma fi. waa kër te nekk nañu bu baax. parce que man dañ daal dafa gaañu rek. fajar ko dañu fëgg. te nit ñi mën a fëgg bari nañ. mais mën nañu fëgg. parce que dama dama war a am moom. nee naa la boo xam wax xasal keebaat tuuti. banal. xam nga soo bëggee xibaar moom non chaque jour dinaa fexe ba sa numéro. Mm-hmm. même bu fekkee xamuloo ko. loolu léegi ci rajo sax nga dégg xibaar dina la jël sa <laughs> euh, mu ngi noonu yàlla na ko yàlla xare àjjana te yeexe ñu bokk mm-hmm. ñu fa fekk ak ñi ko ba tey Kéba sànq nga doon waaj a ñëw ci sa diggante ak sa doom yi nga xamante ñu ngi ci milieu bi. ku mel ni Wally Seck Mandiaye et mm-hmm. sa sa diggante ak ñoom naka la naka la doom ak baay. Mhm. diggante doom ci gën a ma gis. seen baay la doogu ma leen de. waaw diggante ak waay. Mhm. boo leen fekkee ñoom ñaar. Mhm. non da nga naan lii diggante papa ak doom ñi ay morom lañ. Mm-hmm. loolu man dama koo fekkee. taxaw nii ñoom ñaar ñu koy dund. Mm-hmm. loolu tamit jaaxal na ma trop. nga xam nga fekkee bëri na nag yow. <laughs> non li may wax. Ah, non bi fële bi dama leen topp. macha allah. man moom dama leen topp quoi. mais la ma fekkee tax mu mën a wax nii. Mm-hmm. Ah, waaw bu fekkee loolu kenn du mën a wax. Ah. Eh, ba ba ma bàyyi ak jóg. waaw ma ñoom ñun ñëpp fekkan lañ. donc muy wàll yi. muy manjaay yi bambaay yi. Mm-hmm. ñoo ñoo sumay rakk lañu. Mm-hmm. parce que dañu gis euh, seen baay. seen i baay ñoom. ma mm-hmm. nekk seen parents. et puis comme dañu xaw a tolloo tout de suite génération. te man dama bari kafakare. parce que loolu tax ñu jéem wax. li nga wax dëgg la waaye su ma fekkoon ma toog Balla Kotuma est-ce que man yaay Balla. affaire diggante doomu Balla mais ay xarit la. kon ni ma nekkee xarit ak seen seen i papa. ah loolu fi nekk. waaw c'est xam nga man boo tegee seen mbir ci yoon surtout doom yi ngeen doom yi ngeen nga teg seen mbir ci yoon. xam kuy sa laay. ko bi mu bi mu bi nga ko nga am nga am yar. même boo xawee boo ma xawee wut sax maa ñëw jot quoi. mais boo indee nag benn benn ñeeg moom donc damay teg ne. mais ñoom ñoom noonu ni ñu mel ak yow est-ce la ñu mel ku ma ma Penda Ousmane. non am na tuuti. waaw moom la lay wax nii. waaw na la am na tuuti kersa buy dox seen diggante ak ñoom. par rapport man ak ñoom. moom noonu la mel. noonu la yabee ma Penda. waaw waaw ba pare bu la fekkoon fii léegi laa ci moom waaw xam naa bi li ñu am ci waxtu euh, euh, ñu may signaler ne mu bareetul donc kon li ñu mën a def rek mooy ñu yow réglé rek yow fi mu toll li fi nekkoon yëpp naan ko yow kii soxla la non eh, eh. man ak moom ñi leen dëkkee nag ah, te man maa ko takkee woon loo xamul ah. euh, bala ma bala maa ñëw ci Kéba mu def kàddu bu mujj damay émission mu tuddati la tigresse tey yaakaar naa ne émission bi ala daw beneen ak sa waaw émission bi macha allah yéen iya, ñi nga xamante ne da ngeen doon safo El Vision Médias ñu dalaloon fi ki nga xamante ne nag moom mooy Keba Seck ki nga xamante ne moom mooy faramaare bu ndaw bi di rakk ci Papa Thion di rakk ci Ousmane Seck di rakk ci Mapenda dëgg ne borom kuy rey rey. nee naa sama xarit da dëgg ne waaw ak Assane Ndiaye damay fàtte kooku moom mooy kuy reer reer ke, dëgg ne eh. Ba, bàyyu maman Ndiol ya, ak ñeneen gars yi. Ya, ya. waaw mu ngi noonu. Eh, si Diome. waaw di kontaan tey trop ci suñu émission bi parce que tamit ñu ngeen ko gisee nii nii la mel quoi. moom nii la mel ku ñëw na nekk ak yow. niveau boo am nag mun na wàccee niveau am ba toll yow niveau. Euh, kaf ak yow reetaan ak yow boo ñëw gisoo ñun. man keebaat ma koy dégg noonu noonu rek pour man rek moo ñëwee may jaxaaroon di lox. gisoo bind na ko ci man quoi comprendre nga ko bëgg a waxee. moom noonu la mel. Euh, wax dëgg fa yàlla ñu lay ñaanal yaa xam li nga bëgg sa carrière yàlla la ko yàlla defal. parce que xol Iya, iya. lo dalla legge acca mu ngi noonu si sa. <laughs> macha allah li may wax ne dama tey waa Elvision Média tey moom. Eh. macha allah dañoo Salif. Mm-hmm. Eh, di remercier bu baax a baax ñu fekk ko suñu papa mm-hmm. suñu xarit. Mm-hmm. Eh, ñu fekk ko fi mu daal di dara li ma koy wax rek dinaa la ñu neex tamit. di tàggatoo rek di wax waa Elvision Média ñu ñëw dal seen kaw. Ah, soo ko def ci kaw kan. <laughs> ba tey balaa may jox. mais El balaa may jox Kewa kàddu gi kàddu gu mujj gi dañuy def cant ak ngërëm rek waa kër gi nga xamante ni ñoom la ñu fekk si tawakkal ndax depuis bi ñu ñëwee ba léegi gis nga ko dallu ñu def ñu dara ku mel ni ami Adama ak sama jigéen ci ne ci ne ñu mu tuddati mu xees waaw <laughs> ah, kontaan na ci yéen bu baax a baax di kontaan ci waa kër gi ñëpp macha allah eh, comme ni ñu ko waxee rek tey Kéba Seck la ñu daloon man moom dama lay fàttali sama bopp yaa ngi fàttali sa costume ma la ñëwal. desal na la 30 mille. rek léegi sa yoon newu ci bàyyi ak moom lépp <laughs> ñëwoo. <laughs> pourtant sax xam nañ ko sama sama ñaw yi sama avance ba way kii ci ñaw. yow dafa ko mën a yow de. El am na ma xaalis. fan la déglu seen yoon avance ba ma gëj dama la avance la gëj. yow nga dëgg yow. ba ba waroon jël triant triant baa ngi. merci. léegi balaa ma lay. Ami balaa ma tiré si. ba tey gis ngeen ko tey émission bi dafa ala dawe dama ko dama ko dama ko tiriyaane woon nag dafa ma doon ñawal ay costume ma ñawal ko ñaari nice ma ñëw rek mu joxaat avance ma jaare fa ma jaare fa dem sama xam naa jamono jamono tournage bi mu doon def ak tournée clip beeg yooyu moo tax moo tax mu moo tax mu fàtte ma. bu doon weesoo nag bëgg naa am ñamoon tuuti comme. non loolu day ñëw loolu balaa mu. loolu day ñëw day moom. yonent bi lañ bëgg lool mais balaa ngay woowee yonent bi dañu bëgg aussi ak tamit teraanga ji ni mu rëy ni ñu yaatoo ah foog nga wax dara ci El Vision cant ak ngërëm geeg yu mel ne balaa ñuy dem nag ci cant gi. waaw cant xam nga xam la cant mais cant gi moom mooy lii. cant gi moom weesuwul lii yàlla mi ñuy dimbali ñu fekkee. ba mën a xéwale ci ay ci xéwal yi. donc loolu moo cant gi pour war ko am. des moom moom dañ euh, gën a jàmm yàlla. Mm-hmm. ah te dañ ko war a

yaa ngi kii seen dorme doomi maanaam ñii ñëw comprendre loolu ànd ak man ci loolu may sant yaay bu baax nit ku baax la donc alhamdulilah para naa para ne wala bu xees wala ay dara donc su ma waxee naa toog ay onze mois ma fay yaas di ma parce que fii koo fi amul benn weer. loolu leer léegi assurance lañ. non waaw. donc ak yeneen ak yeneen yoo xam ne moom xam naa du bëgg sama wax mais vraiment man damay dolli lu leer dama koy gërëm suñu borom. parce que defal ma ko dara yaayu kii defal ma ko ñaar dërëm. mais vraiment xaw ma sax lay wax parce que tellement ñoom dañ maa jaaxal. su ma waxee ne daf may woo téléphone ne ma lan nga soxla.

à na solo wolof ak français. mais vraiment quand naa trop. ci Keba chaque jour de Donc le monde, il accueille tous les jeunes du quartier il les motive. c'est quelqu'un qui donne beaucoup de de sa personne. gratuitement. Euh, il y a Bourès, Adama qui peuvent témoigner. Franchement, moi, je ne peux, pas, je peux pas parler même tellement Adama, elle a des fils en bas parce qu'on est une grande famille. Mhm.

ci barke Seydina Muhammad ci barke weeru koor ah. acca mu ngi doon wolof Njaay nee na ku ñëpp tifli nga nga tooy yaa baax yaa baax mu mënta weesu yaa baax ci day nekk benn mais lu jugee ci dënn ci dënn lay dugg boo li ñuy wax ci moom ko jeexuñu ko lu ne moom moo koy dund ak nit ñi bundu këram gis nga du tëju ñun bu neexee fa la ñuy defee lu ñu neex fekk ñu fi gardien de moom yaa ngi dégg démb dama ñëw fekk benn baara ak doom ji toog ñuy xotti carton ci di kër gi moom mi ngi toog gàlle bi jax xam nga sama yaram daw quoi bu leer loolu ku maanaam ku tëju wala ku nay mënu ku yaatu moo ko te dama gis benn euh, affaire boo xam ne dafa jafe ci génération am euh, Kéba képp ku koy woo rek papa nga koy njëkk wax mm. papa Kéba papa Kéba moo xam xale moo xam mag donc loolu eh, cër la boo xamante ni yàlla jagleel na ko donc ñuy sant ak gërëm bu baax a baax ki nga xamante ni moo nekkoon ci caméra bi di alaaji loo ba nekkee ndaam kon ah, di sama beneen caméra ma di di euh, Serigne Saliou ñu dugg Serigne Saliou borom njurul mooy maa a baax ba nga réalisateur. am na solo kontaan nañ ci bu baax a baax.